اللهم صل على سيدنا محمد خير الورع رسول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم بوكي تدي ني سيتان سوني تيليفزيون بي ديكتيف ني تي في نيوم ني نوي دي لين زياري بو باخ باخ اي ناكو نون ناي ديف ديم تينغي فيك فا سونو خليف الهاجي ابراهيم غوم ديكا زياره با دي زياره ولا ركام ييب واي نون ناي ديف تامي ديم با تيس فيك فلا فامي جينغ jox leen suñu njaal di leen jaalee suñu bàjjen bi nga xamante ne si moo di jël yaa jëm di ko ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko te xaare ko aljana si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp ki nga xamante ne si am nga mbokk bu jiitu yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko bi jaayi Mustafa sallallahu alayhi wa gaa ñi seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax wax dëgg yàlla seral sa xol ci nabi ngeen nekk nii di seetaan ànd seeg seen xarit Ahmed Massar waaw buñ ne seral sa xol ci nabi nag kon xol yi dafa war a sedd ci doomi Abdallah ji nga xamante ne si moom moo tax yàlla amal ñu loolu moom duñ taay di ko wax li ma alaaji maay naan buñ naan ay yonent dafa rafet wala yonent dafa baax dañ naan danaan loolu dafa dafa dafa am lu ko jiitu ñun lu ko jiitu mu ne wa innahu is arada allahu nasatana abbaana min nuuri muhammad mustapha nuuri nuuri nabil alamin waaw ndeysaan sunu wasila bu tedd moom moo si ne Moustapha al Karami kon ngeen xamante ni si yàlla balaa moo amal dara yonent la njëkk amal si leer yonent boobu la amalee lépp kon ngeen xamante ni si bu dul woon ak moom daal wax dëgg yàlla mbay ñaaw te wax dëgg yàlla gaa yi dañoo nekk jamono joo xamante ni si lëndëm lëndëm yi bari na yàqu-yàqu yi bari na l'islam bi dafa demee boor waaw kenn xamul fu nit ñi jëm ñi war a wax waxatuñ ñi nga xamante ni si waruñoo wax ñooy wax naka sudul noonu gaa yi di lii musal ci loolu nag mooy nga delluwaat ci yàlla dellu ci yàlla nag du dara lu dul dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko copp toog mu moom moo xam le nu ñuy jaamoo yàlla waaw yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam am na góor yàlla yi nga fi nekkal góor yàlla yooyu nag bind nañ bàyyi fi bu ñu topp góor yàlla nañ leen topp ci ni ñu waxee ñu toppee leen ko waaw doo nekk ak sa sëriñ mu wax la lii war ngay def lële ne mu nga gëm loolu mënul nekk kon mbokk yi dañ leen di wax ngeen gën a góorgóorlu ci diina ji gën a góorgóorlu ci lislaam bi léegi bu ko defee dañ leen dugalal suñu première clip ñu seetaan ko boobu nag dañ ciy nuyu suñu xarit yi nga xamante ne si wax dëgg yàlla ñoo ngi seetaan seetaan soxal ci nabi waaye dañuy commentaire di aimé ku si mel ni Waly Sène duñ taay di ko may Ndeye Cissé Mbodj aussi yaa ngi si biir waaye it ay sot si la ñuy def bi baax nañ koy may suñu tante Amine Ndour ak borom këram Ablaye Diop ak rakam Babacar Diop Amadou Diop maire maire maire kii yaa ngi ci biir tamit seen yaay wax dëgg yàlla nekk maire bu baax ku bëgg yonent bi di ko mayaale maire xeere yëpp waaye noonu laa def naka mayalu ko sama caméraman bu baax bi ak xaritam bii di Serigne Saliou kon gars yi ñu dem seetaani clip bi te ñëwaat محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه حبيب الله ونل الشرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحانى فيك macha allah macha allah gars yi ni ngeen ko gisee noonu rek la saa su ne dañuy toog fii bégalante ak yéen ci doomi Abdallah ji wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne sii nag moom lañ doon wax sànq di jaale sunu bàjjen bi jaale ko ay doom di ko jaale ay magam ak rakkam waaye muy nekk loo xamante ne si ñëpp dañ si jaar kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee kon mbokk yi tedd yi ñu waajal li nga xamante ne si comme ñëpp si jaar dañ ko waajal. te bu fekkoon sa loolu day nekk loo xamante ne si daf ñuy tàggu bu ko defee di nga mën a waajal mais loo xamante ne si yow tàggu ci mbetteel lay ñëw almawtu yi at yi faj atan ci mbette rek lay ñëw waaye nag wal xabru sunduxul amalan mu ne bàmmeel mooy dencukaay jëf yu rafet yi Alaaji Moodu Ngom moo ko wax ci waxannatil wujjoo mu nekk loo xamante ne si ñëpp ci war a bàyyi xel bàmmeel mooy dencukaay jëf yu rafet kon mbokk yi tedd yi nañuy rafetal suñuy jëf nañuy sellal suñuy jëf surtout ma si jamono ji lu ñaaw bari na def lu baax yombatul da ngay def lu baax sa nit ñi gisee ko lu bon waaye defal te yàlla rek tax lépp looy def rek na rafet ndax nettali ba tax ndax tey bu rafetul rek ëllëg ci biir wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne si eh, nettali bu rafet te boo duggee si bàmmeel yàgg sa borom di ngeen kàlla ndax yàlla sunu borom moom lépp ci yow dina la ko laaj sunu waa nee na ndeysaan bu fekkoon ku dee rek kenn du la laaj dara dañ lay bàyyi noonu rek nga dem duñ la laaj dara ci yow kon da ngay ñaan yàlla dee ndax nga dem noppal àdduna daf bari ay xat-xat daa bëri métti métti mu ne waaye déedéet mu ne boo dee dañ lay laaj lépp ci yow lépp dañ la koy laaj ci bu fekkoon da nga am mindaan wax xaadim yi dañ lay laaj say mindaan noo doon dundee ak ñoom dañ lay laaj sa doom yu góor yi noonu nekkoon ak ñoom sa doom yu jigéen yi noonu nga nekkoon ñoom nan nga nekkoon ak say jabar nan nga nekkoon ak say dëkkandoo nan nga nekkoon ak say xarit lépp dañ la koy laaj kon mbokk yi mu nekk loo xamante ne sii kenn mënu see mucc kon na rafet rek na rafet ñuy matal julli di wor wer koor sekkante jàmm suñu biir yéeneente jàmm suñu biir di dimbalante kon noonu la ñuy def dugal suñu deuxième clip wax dëgg yàlla clip bi moom dañ koy may waa Thiès yi may waa Thiès bu baax ak waa Casamance yi ñoom Kia Diaw Ndeye Farma Diaw ak ñoom Mam Jaara ñoom Mariama Ndiaye wax dëgg yàlla yaa Binta yaa ngi si biir ak waa Goudomp yëpp bab siri Badiane ak Daba ñu ngi leen koy may bu baax a baax kon mbokk yi dañuy seetaan clip rek te والحمد لله الذي قد أنزل نورا مبينا ونبيا مرسلا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى انظروا نبرغ في السماء هذا وإني ذو خسر وانا خطبنت الناس من واحدا مبيانا كن يونا لسرات الذي يلقى أحمد محمودا بنزم أقرب كن يونا الحمد لله الذي جم يوم ترحنا سكسي بور بيا خمله bi nga mooy dund te du dem ko moo fi sax doon lépp te du fi jógee pour yàlla di gërëm Moustapha waa yëmba Habiballah yónneen yaay mbégte buur bee ay bur yàlla yaay xabiis yaay dimbali lépp lu dimbali ko yaay baaro yaay ko baax yaay latiifo yaay borom ñeewantal bi yaay xaaro yaay borom gàttal be te maa ngi waat naan billaahi wallaahi talaay mbubu rëy yow rek la jot bur yàlla yàlla bu am la bu si nu xel yëpp nangoo yàlla si biir àddunaam mu sàkk ay mbindeef yu bari te wuute si noonu la sàkkee nit nit di xeeb bi nga xam ne moo ngi sokkee ko si Adama ak doo nit li gën si li yàlla bind moo tax waratu noo am bëgg-bëgg bu dul bëgg-bëgg bur yàlla dem beral loxo dul woon nag bëgg-bëggam duñ fi ne bay am bëgg-bëgg. noonu la sakkee ci muy sell yoo xam ne ñooy wutuwaay yàlla si kaw suuf ñoo doon xamal nit naka la ñuy jaamoo yàlla ak naka la ñuy organisé wu ba doon benn yàq-yàq noonu la bur yàlla yónnee wu ndox Moussa Ibrahima ba ibnu Maryam noonu si ginnaaw la tànnee yonent bi gën seen si moom Muhammad ibn Abdullah Xaasim Abdul Manan Xusey Xilaabul Murak xablu way xaalibul firi malik nazarbul kinaana ublu say ma mudrika illa nisan wa xad xadunnaan kenn yonen kookoy Muhammadun Ahmadun Hamidun Mahmudun رسول الرحمة رسول التوبة رسول كريم لله كمال رؤوف رحيم رب الجليل أي سيد القوم زايب الدرجة يا سيد القوم سايب الوسيلة ومدار ku jël sëriñam ba dëkkaleeg Moustapha jiw la mën a meelu Moustapha kenn la Moustapha yàgg ñu di si jikko ak doxalin Muhammadun kaamilu anta tayyibul Mustafa doonoon ko rafet ay jikko doon rafetal ak mbooleem ñi mu xamante loon a dugg si askan bañ ka naan al amina mbégte la kado buur bi la yërmande la kii ñu gërëm la yaa nu gën dem tey soo la ñëw yamin te yaa yi tax ñu mucc ay saydil xawmi saayibul darajo yeneen yeneen seydil xawfe saayibul wasila mamadou yeneen macha allah gaa yi wax dëgg yàlla mu nekkoon tamit wax dëgg yàlla kilib bu neex doom doomi Abdoulaye ji moom noo ko waye rek day neex ndax moom daa neex yàllaa ka neexal yàllaa ka baaxal yàllaa ka laabal yàllaa ka taaral yàllaa ka leeral yàllaa ka jàmmal yàllaa ka musal yàllaa ka wottul boppam yàlla moo koy sàmmal boppam Seydina Mohamed moo tax boo ko bëggee rek yooyu yëpp nekk ci moom day ñëw ci yow ndax man xubbu Muhammadu xubbu ko laa képp ku bëgg yonent bi rek yàlla sunu borom daf lay bëgg te sunu waa ji nee na xubbu ko bi amali jifaaw si ji sifaaw jismu la naa wa rahmatun walut fa la naa fa yàllaahu mu ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf lay defal wér yaram nee yàlla day day day wéral sa yaram waaye yàlla da lay yëram waaye yàlla day ñeewante si yow nga xamante ni si loolu dafa rëy bëgg Moustapha yàlla da lay defal loolu yëpp boo bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay am barke ndax Muhammad mooy barakatullahi maanaam barke si kaw suuf Seydina Muhammad la waaye moom mooy li nga xamante ne si mooy yërmande yàlla nee na yonente bi dama kaa yónne ci yéen uniquement uniquement pour mu nekk seen yërmande kon yonente bi ñoo xam ne yërmande jaam ñi la boo ko boo ko bëggee nag di ko doxal moom wax dëgg yàlla moo lay garantir tout doo nam ma dara nan namu ma dara yonent bi la boo ko jàppee wax dëgg yàlla doo nam ma dara ndax moom lépp lépp moom moo ko yor lépp mooy baabulaahi déggoo suñu waa ji man yuridu tajaari fi jamil atlaay xubbu rasul baabulaay fi ay makaan nee na boo bëggee yow nam ngay yokk di di di di di baax saa su ne de def commerce boo xamante ne da ngay yokk saa su ne doo mën a doo mës a wàññeeku da ngay yokk saa su ne mu ne bëggal bi nga xamante ne si mooy baabulaay te baabulaay nag lépp li nga xamante ne si day ñëw fii ci àdduna ci yonent bi sallallahu lay jaar waaye lépp luy dem ci yàlla ci moom lay jaar mënoo tëb yonent bi dem ci yàlla kon ñoo xam te ne ci Seydina Mohamed moom mooy buntu yàlla moom moo représenté yàlla ci kaw suuf kon nañ dem ci moom mu moom moo ñu jàngal lu ñuy jullee moo ñu jàngal lu ñuy wóore moo ñu jàngal lu ñuy génne asaka moo ñu jàngal lu ñuy ajee màkk yàlla nañ ko yàlla fayal fay bu gën gi fay waaw te ñu topp ko nag topp bi du dara lu dul roy sunnam yonent bi lépp lu mu daan woon def bu ko def lépp lu mu daan def nga sonn si pour mu baax ngeen xamante ne dafa nekk lu rëy moom buñ ko laajee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lan def ñu la bëgg mu ne bu ku ma bëgg man ak moom mbagg ak mbagg bu biir aljana waaye nag dafa am nañ may bëggee ki ma bëgg moom mooy ki nga xamante ne si su ma defee mu def su ma baayee mu bàyyi kon gars yi noonu la ñuy bëgg yonent mais doone man Moustapha la bëgg sallallahu alayhi wasallam ba pare yow bu yonent jaaree fii nga jaar fii lépp lu araam nga daganal ko lépp lu dagan nga araamal ko te bu ngeen seetloo léegi dafa bari ci réew mi da ngay loo xamante ne si yàlla moo ko wax ci alxuraan yonent sallallahu alayhi wasallam wax ko ci addis nga wax ko nit ñi nit ñi ne la ah di ko seet te bu yàlla waxee rek yaakaar naa ne amatul luñ ci seet dañoo war appliquer même yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek yàlla nee na kii du waxee bànneexu bakkanam lépp lu mu wax màkka wax loo te wax xam Seydina Muhammad balaa wax xam te buah bu waxee rek gars yi nan koy seet léegi est ce wan wala ñaan la waye mu nekk lu garaaw loo xamante ne si nañuy moytu lool yàlla nañ ci yàlla musal buñ ne ne alxuraan la nañ ci nekk après bu ñuy ñu seet mais amul waye waaw kon gars yi noonu la def dugalal leen sunu troisième clip bu ko dem seetaan clip bi ñëwaat wax wax nga yoon asamaan yonent yàgg waa asamaan nañu ko teeroo waye ba ko wax nga nu gàddaay yu rasul wax nu ña doon teeru rasul wax nu ña doon wël rasul ci biir Madina topp ko kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ku sopp Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu singaar yi wax nga la xewoon ca teenu zam-zam Cameroon xëy sakk teen ba ngir kañaan yëm ca joo wax nga nu ko te ka teen boobu jigéen tax yàlla gas ko ajara ko ma fi mu ko la هاجروا يل نيل ديغل ابراهيم اك وخم موتخ ايل موي فري يالا تي سين لاك ابرانيل ديغو جبرائيل ميكائيل عزرائيل ايل بوب موي فري يالا déggoo seen maam sëñ Babacar ca xuruf ba i lux shuran lana aya maabudu fi zumrati cheikhi aya watu moo tax màkka gee ku nekk bëgg a dem jigéen a tax jigéen a ko sanc ko def nii yàlla nanga ko ziyaari waay moo tax jëkkër bu gërëmee su ñaanee bal dal ay doj kese fa nekkoon اجر تالل ابراهيم نان ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تري اليهم وارزقهم من الثمره لعلهم يشكرون تيمان جنتي ورا zam-zama bënn may bégal jigéen ju baax nangoo muñal jëkkër ja barke dib cëram maam seeni sa baay kenn du moom baay mbay doon kenn du moom lii bi mu koy taalif amul 30 ans nee na alaaji Moussa Ñang bi daan jiite jumaay Seydi Haaji moo jóge Màkka mu tayraw ko woy wi ajara toog doomam di jooy ngir marwu tar ajara jooy ngir jaaxle loolu naan fu may amee faj ajooy ndoxam ñaari tullam ca kanamam ku dem ba makka gis ko wee mooy safaawa ca kanam mooy marwata muy yëg ba xam ndax dina siin fennum ndoxam aajara dem yëg safa seenu gisul ca kaw safa am ndox ba wàcc na safa jëmmar wa seenu ndoxam aajara baagante safa li mu juróom ñaar safa yéegaat ca marwa kem safa gisul lu faj aajooy ndoxam baagante boo bëlee waral سلبرام بفرتال كدم بورنيك بدخل بين سفاكي مروتا يالا نيكو ستانك يويو اللي كوت سمين نيكبي سوكو دخول مدلوكو عجبا إن الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تتوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة waxi tabaaraka وطا لا موسى moo seede bàyyi صفا أكو taalif هاجر جوي akuk doxam naan ko na dellu fam bawo haajara dellu fam fekk fa teen baakook ballam waaye ku def nii yàlla nang ci rooti waay ndox maa ngi baawaan fan la jëm ci wàllu néeg baam fu mu xam naa fi neex borom bi am kartan ci suuf ballu nga xam ndox maa ngi baaw di taltale xaw mel ni géej di melmele hajara naan sànni gbẹlẹ wóoy bu kama bi fu ma jëm. waaw gars yi kon macha allah wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal yàlla defal leen wërsëg gu yaatu bu ànd ak ragal yàlla waa jamono ji boo xoolee ndaw ñi wax dëgg yàlla soxla nañ am-am waaye am-am bi buñ ko yàkkamti am-am moom dafa nekk loo xamante ne sii boo ko yàkkamtee rek buñ ñëwee mun na laa gaañ. nañ ko xaar te buñ ko yàkkamte te it buñ toog boo nekkee ndaw da ngay liggéey waaw boo amul loo liggéey nga wër loo liggéey ndax boo xoolee jamono jii rek ñu nekk dafa doy waar ñàkk da see nekk loo xamante ne sii moom yàlla nañ ci yàlla musa si jamono ji yàlla na yàlla musal ñëpp ci ñàkk ndax dafa metti boo ko booleeg ñàkk day gën a metti ndax yonte sallallahu alayhi wasallam daan la den leen ñaan yàlla yàlla musal leen ci ñàkk ndax ñàkk rek da lay tax day wàññi sa ngëm yàlla ñàkk mën nga dem ba fàtte yàlla yalla ñu yalla musal si ñàkk waaye it nañ leen wax ni bu leen yàkkamte dara wërsëg moom jarul yàkkamti li yow li la war daal mooy jëla sa temps nga jaamu yalla te nga liggéey sa liggéey boo ko yoree boo ko yorul na nga nga ñaan yàlla yàlla may liggéey bu baax yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla si daraja yonte sallallahu alayhi wasallam ndax boo xoolee yàkkamti moo leen dugal ci lu bari jamono ji li fi nekk si ñaaw def bari na xaalis nag ñu bëri ngay wut nag ñu bëri ngay wut mais am am bi am na ñoom nañ am am yomb tal mais loolu loolu xam ne da koy gërëm waaw kon ñoo ngi leen di ñaanal ngeen jël seen temps yàkkamti mun na laa dugal loo xamante ne si yow yàlla gërëmul lool te yaa ngi siy am di si dundal di di si dundal diine te day nekk loo xamante ne si du lu lew wala yàlla na yàlla dafa wërsëg bu yaatu yaatu waaye te mu lew si daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo bi dañ leen di dugalal dernier clip bi ko defee ko seetaane par ñëw tàggatoo clip bi nag dañ may suñu xarit yi nga xamante ne si ñoo ngi ba tëngeej ñu koy may élage bi ak sërëm yooyu ko si mel ni Aminata Ba ak euh, Fatimata Bintu Ba ak ki nga xamante ne si moom mooy maam ay surtout Samba Ba kon mbokk yi ñu seetaan clip bi te ñëwaat. خيرا بسن سام لك وخبلوا لم يبدو مثل مسوى محمدي سمحا يخد بشيره والبيت لمن أتاه للعي في كل زمان أتاه وسفعا وخبالي معنا كون المسوى رئيسا كل مع الخبر الأخروزة الخبدة معه فوق كل رقبة

خير الورى المختار عند الزمدي مجو كن كن وحاجة داوي كن جيونن بيانا فعلكم الخطب teewal ko ndax se mu doy li may may yow sañ naa wéreeluy kañ boroomam di nit li jaloore di suli ay ndam te waxar baax te waxar baax te waxar baax ndax leen sam boroomam te xëj yàlla fal xam nañ maqaama macha allah gars yi lii la ñu amoon ak yéen ci temps lii la yàlla na moon tey nii la mënoon amee maa ngi sant nag borom kër gi borom Kifne TV borom YFK rajo sëñ Moustapha Ngom di ko ñaanal yàlla defal ko taw tawfeex bu bëree bëree bëri bëri ci njaboot gi ak fépp fu mu nekk yàlla na ko fa yàlla defal jàmm ju yaatu tele bi ak rajo bi yàlla na ko yàlla yëkkati ba ci kaw a kaw a kaw bañ koy dégg fu ne. dëgg yàlla tey fii ma génn nii moo fi génn kon nañ koy bu baax di ko gërëm waaye noonu laa def nuyu waale sama xarit aminata ba sama téer bu mag bi ak tata siga ak xaritam bi nga xamante ne sii mooy fatma taga waaye tamit noonu laa def nuyu waale sama cameraman bu tedd bi ak xaritam bii di sëriñ saalu kon mbokk yi tedd ñoo ngi leen jox dig daje ba beneen àjjuma incha seen émission seral soxal si nabi asalaamaaleykum wa rahmatullah